le, le président Omar Top, donc euh, membre du euh, à Bokyakar, APR Kermassar non. tey ñu organiser journée sargal président Macky Sall euh, ñu gis nga def fi teewaay nga def euh, ban jàngat initiative bi ne waaw bon on est venu soutenir euh, son frère et ami mooy Souleymane Samb mon mouvement de defar de Massar donc jàngat bi ma am tey ci journée bi bon maa ngi koy métitlu par rapport ak les autres responsables yi nga xamante ne ñi ngi dëkk fii ci département Kër Massar plus particulièrement fii ci Kër Massar Nord donc dama jàpp ne tey bés bi ñëpp a waroon manko ñëw tey teewal jëmmal tey Souleymane Sam pour son excellence de président de la République mais gis nañ ne bon ci biir APR comme toujours ni ñu koy waxee rek am na ay euh, fragmentation te ñu koy waral mooy ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo nekk ci biir bëgguñu kenn dem ba pare ñom duñu dem donc c'est ça que je déplore té di lancer appel à tout le monde les querelles la ñu arrêté ko té andando liguey def ko di di xàccandoo di dóorandoo bon conséquences yu mëna a jur mooy perte rek mënul jur yenen conséquences yu gëna a lourd que perte donc perte rek la ci gis donc bu fekké né nit ñi wuñu manko jappalé sen morom euh, frère de parti pour di liggéey ensemble donc je vois que fi ñu jëm aussi c'est pas la peine ñu ci yaakaar dara. moment bi lan la waroon lan moo waroon li ma wax rek mooy dañu war a booloo ñun ñëpp képp ku jóg ci euh, ñi nga xamante ne ay ci njabootu président de la République ñeneen ñi soutenir ko pour que lépp lu muy def mu mën am réussite pour tout le monde mais bu fekkee ne ñii dañuy jóg ñii di gas ñii di suul donc euh, affaire bi. ça ne marche pas Oui, mais tromper, peut-être, je pense que c'est le président de la République, ou voilà, ses collaborateurs, nous beaucoup les tromper. Parce que aussi, ils ont assez de matériel ou bien assez d'éléments, ils ont euh, identifier, wax leen li nga xamante ne moom moo ci commune ak ci département yi donc bu fekkee ne ñoom jëluñu seen i ay dispositions par rapport bon man je pense que nous ñoo bëgg ñu tromper là c'est tout. te un mouvement c'est une initiative mu nekk pour Kër Massar yëpp parce que non seulement wax nañ réalisation yi di réew mi nek di def. Mhm. mais tamit attentes yi nga xamné ñu koy xaar ci ci département bu bees. waaw mais d'accord, le président de la République war na continuer pour jàppale les leaders ou bien les responsables yi nga xamante ñi ngi fi ci département bi ou bien ci ci commune. mais lolu jusqu'à présent gisaguñu actuellement ñu jàppale ben responsable et ce n'est pas normal ñi jox ndombo tank gënuñu ñun ñi nga xamante ñi ngi fi pendant des années di ci def suñu alal joxuñu ñu 1 franc jusqu'à présent mënuñu ci gis suñu bopp pour quelle raison donc ce qui fait que liñ fi liñ fi liñ fi ñew tay tay li fi indi tay moy sargal ko mais gis nañ ne responsable yi kenn ñewul la plupart bok ñewuñu parce que peut-être dañu am frustration ak xeexante bi ak guerre de positionnement bi lool rek mom mo waral li nga xamante ne tey moom lañ fi gis tey. no bon li may yokk rek mooy euh, appel à l'unité par rapport ak euh, responsable yi nga xamante ne ñoo nekk surtout fii Kër Massar Nord ak ci département bu Kër Massar ñu gën a xoolaat suñu doxalin gën a defaat reconsideration par rapport ak politique bi nga xamante ne moom la président de la république bëgg donc suñu bëggee am ay yeneen ndam. Ouais, d'accord, mais mais mais l'opposition, opposition mënuñu ko le pouvoir parce que l'opposition, peut être que ñoom dañuy dem ak benn ou wala ben, ben, espoir boo xam musul am ci mais là c'est l'État. c'est est un est déjà ñoom ñoo déployer les moyens qu'il faut pour jàppale les c'est tout oui merci terre du département de Kermassar, la 46e, qui a gagné la confiance de son excellence, le président Macky Sall. qui gagné Macky Moustapha Mbengue il est là accueilli par la foule. ainsi que la délégation qui vous a ñoo ngi seen ki nga xam ni mooy Souleymane Seye ñoo ngi seen Moustapha seen Omar Top ñoo ngi seen Demba Dia ak ñi nga xam ne ñëpp mooy les responsables du département ñoo ngi fii nga xam ne ak son excellence Moustapha Mbengue gis ngeen ko ses amis ñoo war ba ñoom ñëpp ñu ngi nuyoo gis nga honorable léegi nag di toog ñu gis membre au conseil Oulimata Ndoye ñoo ngi seen Modou Tine ñoo ngi seen Souleymane Tine

Souleymane Samb ak euh, Fatika Fam ñu nekkoon ay nit yoo xam ne ñu ngi nekkoon ci Yewwi Askan Wi doon liggéey ak le maire de la commune de Kër Massar Nord yàlla dogal tey mu ñëw ne day jàppale son excellence le président de la République ba pare di ko sargal teg si donc kon nag loolu ñun nu ñu mën def moy ñew jappalé ko ci accompagner ko ci encourager ko ci initiative bi nga xamné jël nako di ko ci félicité bu baaxa baax sargal président de la république nak ku nekk war na def ndax kermassar Massar gi tay bu nekké 46e département grâce à son excellence le président de la république Macky Sall ndax ca tey jii lépp loo xam gis nañ ko fi ci Kër Massar euh, muy commencé ci projet Promoville muy tali ñëw ci éclairage public bi muy éclairage public solaire muy extension électricité muy projet de canalisation muy les routes bitumées muy autopont muy gendarmerie muy commissariat de police muy maison de justice loolu lieu pour faire amee yàlla ak son excellence le président de la république moo tax kon donc kooku mérité na Kër Massar sargal ko kon moom bu ko sargalee ñun dañ ko ci sant di ko gërëm waaw ma di sant nag ñëpp ñi nga xam ne ay responsable lañ nekk ci département bi di jàppale soon excellence ñoom tamit ñëw teewee bés bi ndax ñun loolu moo ñu war comme ñoo ko waroon def su ko defee ñun li ñu war mooy ñëw teew si waaye jàppale ko tamit ci bés bi. waaw on est fi ñu daaneele mooy xam nga tey département bi seen nawle yëpp ñu ngi fi yaa ngi daanaka Omar Top Souleymane Seye ñoom soo ñu ngi ci kaw ñëpp ngi fi ban kàddu ngay wax tey nga tey sa doom Moustapha Mbatane Mbengue ban ngay wax unité bi nga xam ne département Kër Massar ñu koy laaj. Ah, li may wax rek mooy xam nga département de Kër Massar euh, département bu bees la waaye yàlla dimbale na responsable yi fi nekk yëpp xamante nañu. muy Benno Bokk Yaakaar muy APR tey jii nag dañu war a teg lépp ci suuf ñu xam ne

wuy depuis 15 heures kon tey le département day amel tof mooy seen ñu son les honorables ñëpp toog membre co conseil membre commission sociale ñëpp toog nañu pour sa question de change kon mbokk yi loolu mooy événement bi tey jërë ngeen jëf